yow maa ngi moom amaat. Ari Asit Sikil mi? Sikil mi?

TV ak euh, Sans Limite TV c'est un immense plaisir ñu am Waly Balago Seck le coordonnateur de la musique actuellement sonn na lool waaye il s'est dit que ni foog ñu ñëw ci boutique bi nga xam ni ay doomam ñoom ñoo ko te moom moo leen soutenir su ma juumul interview bi moo mujjee def ak waa Jimo ni Waly dañuy dañoo ñëw sa kër historique bu ubbi buntu bi ñëw sa kër euh, ngeen leen waa yéen daañu doom ci lan ngeen ñëw ñoom ñu ne dañoo bëgg ubbi buntu nga leen proposé boutique bi daal leen koy ubbi la nuyoo ñu waaw maa ngi leen nuyu di la ziar di ziar ñëpp di wax bonnes années à tout le Sénégal à tous les Faramareen di leen wax merci beaucoup d'être ah, merci beaucoup pour leur soutien maa ngi nuyu suñu yaay bi yaay jument Afia di nuyu ñoom jument Afia aussi ah euh, c'est tout à fait normal ay xale la ñu nekk ci man di ma guddeel di ma bëccëgal ah weesoo seen euh, côté influenceur bi def. waroon am benn liggéey bu ñu xëy mis à part loo xamante ni bokkul ak Wally yàqul leen dara donc c'était un soutien rek bu ñu def pour ñoom c'est tout à fait normal alors que ni ma koy defee ci dem ci beneen boutique ñoo ma ko waxee rek euh, yàlla dogal na dama am rak bu baax bu ñu wax Mortala chéri aljana di suma rak moom tamit bi ma ko jàppalee ba mu tegu ci yoon jàppale na ndaw yu bare bare ñu tegu ci yoon maa ngi ko ciy gërëm bu baax a baax référence la ci xale yi képp kuy jaay nekk ci boutique moo tax la référence la ci yow te lii rek laa ci bëggoon léegi ñoom tamit ñu ngi ñaan ñoom Jumo Afia ñu dem ba nekk référence tamit ci yeneen ñi ndaw bu sob yàlla yàlla def mu am yeneen i boutique ak yeneen yeneen ndax euh, compte boo gis wàññi boo gis ci benn lay tàmbale donc c'est juste ça je suis venu apporter mon soutien waxoon naa leen promettre naa man ma dinaa fi ñëw malheureusement ubbi bi dafa fekk ma jàpp xat loolu donc ma am tey temps ma ne ma ñëw fii jaar leen wax leen ni vraiment yëg naa lii am naa ci contentement. d' accord offre emploi amatul ci réew mi bëreetul bu gis waa ñu ngi ci ñu ngi ci jox jéego bu am solo ndaw ñu ko wër yëpp ñu jox emploi def nga ko ci ñeneen ñoom bi ma leen di jëjal bi wax nañ que ni li ngay def ci suuf ci emploi moo gën a ñoom peut être dañuy ñëw ci ko wax mais ngay defal nit ñi ci emploi moo gën a fës li ñu wax. Wally ak jeunesse bi ak emploi li ñu la bëggee noonu nga amul loo leen faye nga ne naa leen ko delloo ci ay offre ay emploi wala yow jeunesse bi ak di leen jox liggéey naka la dem waaw suma bopp laa ko defal parce que kenn xamul ki lay jëriñ la loolu moom suma bopp laa ko defal parce que toog naa suma waajur ba tey nit ñëw ne ko yaa ma fayaloon temps ma jàng léegi lii laa doon lii maa la ko indi gis naa ci ay nit am naa ci ku ci mel ni Abdou Khadir dañoo daje mu nekk jaaykatu portable ne ma dama bëgg tukki ma xool ko mu wax li mu dëggu ci moom ma jël passeport am bi jëntil ko mu dem chaque weer ndeysaan mu néew mu bare dina yónnee koppar ne pour ma def ko ci man donc loolu c'est c'est c'est important maanaam Abdou Khadre fay na ma bor bu yàgg léegi kay maa ko donc àdduna noonu lay demee euh, jàppalante la rek. ñoom ay faramaare lañ wala ay faracee. <laughs> <laughs> Ah, ah, ah, waaw Fara Cekkee c'est un gars qui l'a créé koy wax Mara moo koy nuyu de passage jàmm ak wér-gu-yaram ñoom ñëpp ay Fara Mara lañ ñëpp ay Fara Mara lañ interview bi dafa defoon tool bi ñu bi ñu waxee que ni di nga leen joxe chèque man sax maa leen commencé naa leen chèque bi cinquante millions la ak trente millions mais ñoom bokkul sax ñu ñu ñu toll mais euh, d'une manière générale daal sénégalais yi ñu bëri ñu doon ñu doon bind commentaire bi wax naan boutique bu cinquante millions la wala boutique bu trente millions la waaye ñu ngi jàppale doman yi boutique bi li mu toll ci dayo ñi ko gën a fort hmm. euh, donc euh, euh, ak lu mën a xew rek ñoom tàmbali nañu waaw tàmbali nag moo moo jiitu lépp yàlla yàlla teg loxo yàlla wéral leen yàlla sàmm leen ba ñoom ñu créer yeneen jumeau affaire pourquoi pas wala wala nag. mais ngay def actes yi doonte sa papa nga gis waal yi day fekk xam waa ji noonu la toll. sa tolluwaay moo moo demee noonu. noonu la toll teguma ko sama bopp yàlla moo ko def. Oh. lan mooy secret bi secret bi ci waa ji ku rek mooy loolu. wala waa ji mu laal wala ku mu wëy macha allah. waaw mais xam nga loolu euh, man li may wax rek mooy euh, la propriété buñ koy wax set. Mm-hmm. bu ñu wax set du ci solu wala nga xeeñ lu neex non non non. set ci xol la ah donc quand le cœur a propre ah quand quand le euh, ci teg rek yàlla mën na ci def barke waaw ah. te xol bu set moom yàlla koy maye donc tànneef la bu ma bokkee ci ñum ko defal nag te mu xam ko gëm ko am ah, ma koy sante moom la rek macha allah ah. alors leen di wax ñoom itam ñoom ñi nga xam ne tey recevoir nga leen euh, plutôt ñoom ñoo la recevoir ci boutique bi je pense que am nga loo leen mën a wax itam pour ñu gën cee bàyyi xel dara dara duma leen ko wax. parce que parce que li ma yaakaaroon ci ñoom tàmbali nañ ko nit nenoo ci nit ba taay damaa bëgg tàmbali nga jox ko taxul mu tàmbale. dara ñii kon dañ leen ñaanal rek ñoom ci li ñu ne xam nañ ko xam nañu dañ leen yónni yàkkam ci leen xam nañ ne am nañ waajur yu ñu war a toppatoo war nañ ma léegi seen sœur ak seen frère donc ils n'ont qu'à faire ce te ñu ngi ci. wala ban observation nga am ci Baldé Faramareen bi mujjee am. am na ñu bëri ñu réclamé que ni Wally xajatul ay espace nekk euh, ak aussi bi nga bi nga fëndee ci scène bi gis fépp fees am ñoo xam ne sax amu càgg leen téye ñu réservé woon nañ table sax ñu am accès ci seen table yooyu ba Wally ak Baldé Faramareen est ce que jotul yow staff bi ngeen jël décision que ni xam ni xajatoo leen ci salle yi nekk fii ci biir Dakar pourquoi pas Arena pourquoi pas yenn stade yu mag yi waaw li ma la wax rek boo gis euh, ci benn la commencé euh, spanat xaj nañ fa ah mais xaj nañ fa am yëpp waaye ah non xaj nañ fa xam nga rek ah, mu dem na ñoo xam ne dugguñ ba ñu waaw mais loolu mooy naa koo xam ne table la am mais loolu mooy xoromu saare bi <laughs> xaj nañ fa de loolu mooy xoromu saare bi ça dépend ci bés bi rek waali moo demul ah, ah, nga wax nii xam loolu mu gëmoo ah gëmoo mais du tax doo fay dem waaw ok bi ma leen di jëlal Bercy en 2016 je l'ai pris en deux mois ñaan dafa dof ñaan dafa wérul ñaan day xaru euh, je pense que Wally moom jël na salle bi moom ñu naan kawteef loolu du gule donc loolu du problème aw problème boobu mais aussi il faut ngeen comprendre ni arena problème dafa am problème accès waaw suma waajur bu góor bi mu ko defee Youssou Ndour ma ko nuyu passage parce que moo ko ubbi bi ko defee am na ñoo xamante ni neuf heures la ñibbi seen kër dafa am problème accès ak lu mu mën a métti métti métti grand théâtre moo tane parce que balaa sept heures du matin di nga sa kër six heures du matin mais am na jour bu mu tegee foofu moom am na ñoo xamante ni neuf heures ñii dix heures la ñibbi seen kër yi moom sax wax na donc dafa am problème accès donc day gën a nekk coono ci gars yi à vouloir faire à à à vouloir euh, faire et gagner beaucoup d'argent aussi day gën a métti coono ah, Faramareen waaw. buñ ko guddal ak philosophie bi nga xam ne moom la am maanaam euh, malgré lu histoire ak wala lu wax bari bari bari il ne sort pas maanaam lu wax euh, yar la wala stratégie bi muy liggéeyee. man bu ma waxee wax. comme coow li wax non c'est comme ça c'est comme ça la meilleure réponse c'est le silence. et euh, la meilleure solution c'est le silence ah, parce que chaque fois di nga wax même en voulant euh, éclaircir certaines choses da ngay di lëndëmal et je préfère euh, bàyyi noonu. day fekk benn kër guy dox sax mu tas ko ñan ngay tontu ñu wax parce que tamit tas nga fa la de nañ ko waxtaanee <laughs> gudd fan ak wér rek nan lay ñaanal. yàlla defal la jàmm. nga yegg fi nga bëgg a yegg. yal na bu kenn mën ci yaw dara te kenn du mën ci yow dara. ma ne ko ñun sa baay ba la ñu bëggoon ma ne ko sa baay ba la ñu bëggoon seet. seex yi ci la ñu fee. ma ne ko seex yi ci la ñu fee. seytaane ngeen bal. Bala seytaane ngeen. foo mën a toog loo doy loolu laa ana si mooy alhamdulilah seet bi ñu am nañ trop fan ak wér rek la lay ñaan amiin amiin yàlla defal la jàmm amiin amiin yàlla la yàlla teg yàlla bu kenn mën ci yow dara te kenn du mën ci yow dara kontaan naa macha allah. nga ne doomu tontu ma jaajëf